ci solo xew-xew bi ginnaaw bi nga présenté ci dañ umpale. waaw Sow ci groupe communautaire bu Pikine euh, ci formation bi nga xam ne Equitas na ceeg ak Résidus ada ceeg inspection d' bu Pikine Guédiawaye ngir ñu xeex li nga xamante chantage ak harcèlement sexuel ci milieu scolaire lu nak nag mu nekk projet boo de phase bi dañu taamoon ñeenti zone ci diwaanu Sénégal bokk na ci département euh, bu Pikine bu Notto Diobass bu Thiès ak bu Sédhiou fii à Pikine nag ñu xool ni euh, bénéficiaires yi ñi nga xam ni victimes yi la mooy élèves yi nga xamante ni ñoo nekk ci établissement scolaire yi nga xam ni euh, bu ñu sukkandikoo ci rapport yi ñu jot au niveau de l' inspection d' académie de Pikine Guédiawaye dañu gis ni école yi ñuy ciblé di lycée Thiaroye yi di lycée bu Pikine di CM bu bees bi nga xamni moy CM Thiaroye sur Mer nam dina jaaxal ñu bari ñu ne CM bobu lu tax ñu jël ko mais dafa nek CM bo xamni ci situation géographique figam dafa nek lu li gëna rendre vulnérable zone bobu nga xamni élèves tay ji euh bu ñuy wax chantage sexuel nam dina mëna nek digënté élèves, élève élève nek na élèves professeurs, élève professeur mën élèves nekk élève kër ga ba ci école ba kay liggéey ci alentour école bi muy environnement scolaire bi ñoo ñëpp mëna nañu nek ay auteur ci li nga chantage euh, harcèlement sexuel ngir ñu indi parce que gis nañ li pousse nañ élèves ñu ak euh, mais dafa euh, éducation des droits à l'éducation aux droits humains mais également dugal len sen bop ne ñom ñi nga xam ni souvent ñom ñoy victime war nañ mëna a les acteurs mo xam enseignant bi la mo xam professeur bi mo xam euh, élève bi la donc lool moo tax ñu def ay panel sectoriel ci établissement yoy ma len wax pousser élèves ñu réfléchir ci thème bi nga xamanteni mom la wax légui muy chantage sexuel harcèlement sexuel xol lan moko ko wundu muy cause yi xol lan la mëna jur muy conséquences yi xol lan moy saafara si muy solution yi nga xam ne ñoom ñoo koy génneel seen bopp su ko defee ñoom ñu ñu duppee les détenteurs euh, de droit ñoom ñi am seen àq ak seen yelleef du ñu xaar kenn ku leen ko moytul waaye ñoom ñuy jug sàmmal ko seen bopp ànd ceeg ñu ci war a àndal ñuy détenteur d' obligation yi muy enseignants yi nga xam ne ñoo leen war a encadrer. anam la ngir xeex euh, teel am doom gi wala sax ñi nga xam ne dañ leen di sàkku ci lu dul seen coobare. waaw ñoom wax nañ ko ci seen i xalaat wax nañ ko ci seen i gëstu ba bind ko taf ko. Euh, mooy euh, li mu mën a jur li mu mën a jur mooy xale bi nga xamante ni loolu dal na ko euh, mën na am gàcce ba dootul ñëw école école bi mën na ko rejeter mooy ñu isoler ko ca kër ga mën na fa am jafe-jafe mën na cee ëmb ëmb bu teel mën nañ ko dàq ci société bi rejeter ko carrément ba finalement daf koy jural ñeñ ñi ñeñ ñi lañ koy wax mm-hmm. ba mu def naka sudul noonu mën naa jur Euh, jéem ko jéem ko jéem a rey wala mu moom la ñuy wax infanticide mën na it vraiment dugg ci délinquance juvénile mën na bàyyi école te loolu nekk na loo xamante ni ñun suñu xeex la ñun ñëpp moo tax euh, jëru jiñ dénk wàllu njàng meek njàngale mi daal di teg benn cellule nationale tuddee ko cellule bi nga xam moom mooy genre équité di yëngut ci euh, sàmm gi ñu war a càmm ak ak yelleef doomu aadama yamu ca mu indi ko ci inspection d' académie yi ñoom it ñu installé ko ñu nit ñu jëlaat ko yóbbuwaat ko ci établissement yi installé fa ay cellules ngir ñu aar gone yi ci wàllu woowu mais nag li ñu tax a jóg moom mooy gone yi au ñu aar leen dañ leen di fexe ñoom it ñu ñaax leen ñu xam ñan ñooy ñan ba ñoom it ñu mën a aar seen bopp laataa kenn. ginnaaw tàggat gi topp gi ci war naka lay demee. waaw mooy suivi bi topp gi moom mooy ñu fexe ba ñoom seen bopp ñu dégg message ñu wax.

mais dafa nek ay élèves yo xamné ne dañ leen jox cër ci ci biir l'école ya muy élèves yo xamné ne dañu bokk ci gouvernement scolaire yi nga xamanteni ñom lañu la ci école yi élèves yooyu tay ji dañu am ay part de responsabilité ci ci école yi donc ñom ñoy servir de relais ñom ñoy jëlat li nga am fi ci xam-xam ci walu wowo jëm ko jébbal seeni ñoñ manam yenen yeneen élèves yi ba mu gëna law ba élève bu ci nek gis ci sa bop jël xex bi def ko sey bi bop